bon comme gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah, ku nekk sa tur sa sant di wax ni que ni man la Bari eh, médiateur euh, linguistique culturel euh, di liggéey ak coopérative bu ñuy woowee di Morata Braham maa ngi enregistré message vocal bi nii pour informer leen maanaam xamal leen yëgal leen que ni yan comportement maanaam yan euh, digle ngeen war a topp pour moment bi nga xamante ni tey jii nii jàngoro bi xaw naa. xam na euh, mm, bëri si biir dëkk bi quoi comprendre ngeen moom la ñu wooyee Covid 19 quoi maanaam dañ ko abrégé quoi maanaam mooy comme coronavirus bi rek léegi depuis le 8 mars euh, ba si 3 avril 2020 maanaam si weer bu ñuy ñëw dugg si nii ñetti fanam ñoo ngi tere képp koo xam ñoo ngi tere comme nit ñi di génn si kër yi nii quoi comme par exemple tey nii bu fekkee euh, da nga war a génn quoi xam nga dafa war a fekk ni carrément tey jii nii yow war a dem pour ndugg nii ko xam nga comme loo xamante ni daal maanaam. te mënul ñàkk ko xam nga nga war a dem dugg ñi jënd ji lekk wala nga am rendez-vous nii xam nga nga war a nga am rendez-vous si euh, hôpital bi mii wala nga am si wala sa docteur wala affaire yooyu noonu wala tamit euh, nga war a dem liggéey xam nga comme booy dem liggéey nii toujours ñu ñoo xamante ne que carrément ñoom ñoo ngi liggéey ba léegi ñun lu ñu leen di digle mooy nga yor sa contrat ni ko comme ça la arrêté teg da ngay wane sa contrat wan ni que carrément yow yow mii de da ngay dem liggéey xam nga comprendre nga. parce que loolu tamit motif la boo xamante ne tey jii nii nit mënul toog si kër gi bon loolu boo leen ko wanee après day baw ka parce que sinon bu la arrêté si mbedd nga nekk di dox nii te ne te fekk carrément nekkul motif bu valide moo la génnloo sa kër après tamit mun nga si am ay ay jàllankoor ko xam nga ay amaan ba ba si lu si nekk mën la si fekk ko su weesoo loolu nag xam nga ñun. Euh, si comme comme jàngoro bi dafa nekk loo xamante ne tey jii nii maanaam comme symptômes yi comme lu lay won ne que ni carrément yow mi xam am nga ko mooy dafa nekk lu léger quoi xam nga symptôme mooy comme lu la koy won quoi mooy comme tey jii boo gisee yaa ngi sëkkat nii xam nga yaa ngi sëkkat sëkkat yi bëri wala yaa ngi am euh, enrhume mooy comme yaa ngi yaa ngi tisoo lii xam nga wala comme tamit yaa ngi am ay ay méttitu sa sa baat bi da day métti wala comme tamit euh, yaa ngi am tamit fièvre fièvre mooy comme sa yaram bi di tàng tàng bu baax quoi xam nga waaw. symptômes yi gën a garaaw nag mooy comme tey jii nii boo gisee que ni nga am ay dënd nii ko xam nga sa dënd bi di métti yi xam nga wala comme tey jii nii nga am tamit ay difficulté pour mun a nooy maanaam pour mun a nooy nii saa am nga day xaw a jafe comme loolu noonu moom ñoo xamante ne tey jii nii euh, dañoo xaw a màggee tuuti wala ñoo xamante ne dañaa am kom ñu ngi koy wax ay asthme affaire yooyu noonu comme ay difficultés respiratoires ñun moom xam ne dañu am jafe-jafe pour nooy nii ñoom ñoo gën a euh, nekk en risque parce que tey jii nii ñoom lu tuuti rek mën na leen ko jox donc ñoom noonu ñoo war a gën a gën a mën bàyyi xel te tamit euh, aar seen bopp quoi. bon su weesoo loolu comme que dañoo ne feebar bi instant yi yéen gis ngeen nu nekk di tasaaroo biir dëkk bi donc euh, lu ñu leen di xamal rek mooy ci lu leen di mooy naka lay duggee si nit ki mooy comme par exemple tey jii nii xam nga mooy ngeen bañ a euh, di jegante nii xam nga di nekk fufu si euh, mbooloo quoi parce que tamit xam nga nit ki mun naa nekk di wax ak yow nii comprendre nga c'est ça ma bëgg parce que tamit du nekk ay intention mais comme mun naa wax ak yow nii rek Euh, xam nga salive bi quoi maanaam mm, affaire bi di génn ci gémminam wala comme ñu wax ak yoon nii rek xam nga mu tisoo lii wala comme fekkee comme par exemple mu am na ko te xam nga mu tisoo lii wala mu euh, sëkkat affaire yooyu noonu rek xam nga yow mu ne la kaa transmettre si lu ndaw quoi te donc ñu ngeen di euh, xamal que ni contact direct bi ngeen moytu ko bu baax a baax te tamit ngeen xam ni que ni tey ji tamit maanaam nit ki tamit mun na kaa jox tamit boppam naka la koy joxe boppam tey ji ni bu fekkee que ni carrément say loxo yi dañaa tilim. exemple mën nga jógee comme terrain nii quoi xam nga jógee terrain football nii xam nga nga jékki-jékki rek comme ça comme ñu nga jël sa loxo bi nii bi wala sa bakkan wala sa gémmiñ sa loxo bi setul donc euh, sa loxo yi mun naa am ay euh, ay ay saleté mi si loxo bi après tamit mu trans ko si bakkan wala si lii bi te foofu tamit xam nga day nekk problème donc ñu di digal que ni ngeen bàyyi si bu baax te tamit euh, di leen yëgal di xamal ni que carrément feebar bii nii am nga. c'est euh, par personne quoi maanaam nit ki moo koy jox nit quoi xam nga ay ay animaux nii xam nga ñoom di nga ko joxe quoi comme loolu tamit pour dalal xel ñenn ñi quoi ñoo xamante ne xëy na ñoom am nañ ay ay xaj ay animaux xam nga du du jóge si ñoom daal bon lu ñuy diggal nit ñi mooy kën gaanam ngeen topp suñu euh, comportement mooy benn bi mooy ngeen di raxas seen loxo ak euh, ngeen di raxas seen loxo foo foo leen toll ak ndox ak saabu ak euh, jumtukaay raxas loxo bu am alcool solo nit yoo xamante ne euh, léegi dañaa am feebaru sëkkat wala dañaa am problème respiratoire mooy comme problème nii xam nga euh, bu fekkee que ni carrément tey jii da ngaa war a laal comme sa loxo nii bul laal sa loxo say bët say bakkan wala tamit si sa si sa gémmiñ bul nangu di jël sa loxo nii di ko teg sa gémmiñ sa bakkan wala si sa sa bët donc ngay. ngay couvrir maanaam euh, comme tey jii nii booy sëkkat nii xam nga nga euh, teg sa loxo ci ngay sa mm, bi xam nga ak tamit sa sa bakkan bi comme ça nii wala comme tey jii nii nga jël comme benn papier nii maanaam benn kayit benn mouchoir nii soo paree nag soo paree comme ñandu nii quoi xam nga soo paree comme tissu tamit kayit boobu noonu tamit da nga koy sànni immédiatement quoi maanaam doo ko téye. bon comme cinquième comportement ñoo ngi digal nit ñi que ni bu kenn jël garab boo xamante ne ay antibiotique wala loo xamante ne tey jii nii sa médecin bindalul ko loolu xam nga di digaluñ ko kente tamit nekkul lu baax donc tamit euh, seen euh, fi ngeen nekk nii tamit dee di ko euh, comme fi di nekk nii muy seen nekk muy seen dara xam nga su amee ay ay désinfectant tamit loolu tamit baax na si trop trop da leen désinfecté fi ngeen di nekk ak tamit solal masque boo xamee ni wala boo yëgee ne kenn carrément tey jii nii. yaa ngi euh, da nga xaw a am darul lay métti sa yaram wal daal xam nga danga am problème pour nooy ni solal masque wala bu fekkee kañ carrément da ngaa war a dem liggéey ak ñoo xamante ne Euh, dañoo am jàngoro bi comme par exemple ñun suñu liggéey bu mu def ne mun ngaa dem tey nga war a traduire kenn bon mu fekk nga fekk ko si hôpital bi ñun dañuy sol masque bi parce que ñu ngi liggéey xamante ne dafa yor jàngoro bi yéen tamit bu fekkee ne ngeen dem parce que fi ngeen di liggéey dafa am kenn koo xamante carrément moom dakaa am wala dara nii foo tamit ñu ngi leen di digal ngeen aar su fekkee tey jii da ngeen yëg ni wala da ngeen jàpp ni que ni carrément yéen nii euh, xaw am ngeen comme jàngoro bi nii bu leen dem si pronto soccorso bu leen dem fenn bu leen woo bu leen dem hôpital xam nga naka ngeen def da ngeen di woo seen docteur seen médecin de famille mooy seen docteur bi wala tamit euh, ngeen woo médecin bi après moom dina leen wax naka ngeen di def comme dernier comportement mooy ñun li ñuy digal nit mooy comme tey jii nii bu fekkee que ni carrément ñu koy de sax da nga war a aviser moom da nga war a yëgal sa opérateur comme tey jii bu fekkee da nga am ñu koy tam ñu koy waaye tamit da am tamit lu lay métti wala da nga am seeram dafa tàng wala yaa ngi sëkkat yi wala comme tey jii nii bi nga jógee comme Chine ni yàggul quoi maanaam motu sax 14 jours loolu lañ koy yëgal wala nga dañ koy yëgal sa opérateur comme ça ne moom mu jéem a woo numéro ba nga xam moom la ñu woowee 15 00 comme ça ñu si jël ay matuwaay waaw c' était bari à l' écoute donc euh, naa loo xamante ne jum naa si man si jégalu c' était rek pour xamal leen yëgal leen que ni carrément daal affaire bi naka la fa demee noonu waaw maa ngi leen di bu baat di leen sant di gërëm si déglu bi quoi ak vocal bi nu mu guddee nekk leen si jàmm.